monsieur le ministre avant ñuy wax ci doléances yi dañuy sant quand président de la république ci réalisation ci wàllu forage surtout les forages pastoraux euh, yi nga xam ne mun nañ ci jël exemple comme département bu Ranérou euh, bi muy jël nguur gi 2012 ñu ngi ci neuf forages actuellement ñu ngi ci 58 forages yoo xam ne euh, nit ñi. quand gént la sax ñoom kon ñu ngi koy sant bu baax a baax ci loolu mais du tere aussi 2016 euh, am na dëkk yu ñu ñëwoon ba natt lu mel na euh, Feto c'est dans le Houdalaay euh, ak fu mel na lu gere Thiolly ci commune Louguéré Thiolly dëkk bi ñuy wax Cukkungal beneen bi mooy bit jaloo ba c'est dans le commune de Vélingara Ferlo donc demoon nañ ba natt mais ba tey quand Euh, gisuñu dara ci wàllu boobu mënuñu nag kaas parce que lii ñu jot bari na mais nag comme nit ñi population bi demoon nañ ba am ci yaakaar bu doon suñu sago ñu réaliser beneen bi mooy préfère lo monsieur le ministre euh, préfère nit ñi dañ ko yàkkamti bëggoon naa xam fan la toll fan la projet bi toll parce que suñu conseil d'administration bi mujj am na lu ñu ci waxoon ba pare tamit li ñu dal ci yenn forage yi bañ ñi dal ci préfère Euh, béykat ak sàmmkat benn lañ mais buñ ne forage pastoraux les forages pastoraux am na ci yoo xam ne tey éleveurs yi joteetuñ ci te war nga xoolaat nu ñuy doxalee forage yi doonte ne li ci ëpp communes yi la mais ñu xoolaat ko parce que mbalka yi nga xam ne foofu la ñuy wuggee jur gi li ci ëpp tëj na ba yàqu par borne fontaine rek nga mën a wuggee pour ku yor trois têtes wala 500 têtes boo nekk ci robine la dafay métti ci moom bëgg naa nga bàyyi ci xel geestu ko préferlo euh, bi aussi bu xase bu bu déparé ñu bay xel sàmm gi ak baykat yi ku ci nekk xam fu mu war yam yem parce que su boo su dul loolu day indi jafe-jafe yoo xam ne c'est bugguñ ko ci kon ñu ngi lay ñaan euh, ñaari euh, projet boobu xam fu mu toll mais aussi ñu jéem a baral jéego yi ndax nit ñi soxla nañ merci beaucoup monsieur le ministre